combat Papis lañ wax. ak ak ak ak Ibou Lo mais du boobu du ñoom ñaar. taxawal kee daal fas yéene ki ñu jàkkaarloo. koo quatrième combat xoolal ma écrit. Fass Dakar Socé 2 la ak Suukar moo ngi noonu Socé 2 la moo ngeem moo ngeem bu weer bi di gën a suuf moom Socé 2 la. reportel moom la waaw kan mooy Socé 2. moo ngeen moo ngeen ak suukar suukar ak Socé 2 mbokk ñu ngi noonu dégg ngeen sànq li nga xamante ni <laughs> moom la tubaab bi def ci wàllu bàq Socé 2 suukar ndeysaan suukar moom daa saf sap. mais eh, suukar moom def neex. ah dina neex moom. maa la ko wax mais xamul lu muy saf la bi. neex lay sax. waaw ban xeetu neex. neex neexu suukar. xorom tamit naqariwul de. ah xorom neexul de bu amul xorom du neex de. waaw ah, day lewet. ah. billahi waaye ëpp ga baaxul. soxna tamit neex na de. soxna dafa baax. Ah, baax dafa baax takk jabar. <laughs> baax na ci kan bëgg naa la jël na ko jël na ko soo seetee jël na tànk ba. jël na ko suukar. génne dóor laay laay la laa soose soose soose jël na tànk ba boppa du liggéey daan na ko soose deux daan na soose deux daan na ko bi neexul de la mi kay ndox la suukar bi kay safut dara suukar bu am ndox waaw suukar bi est-ce que dëkkul Thiès eh, déedéet déedéet <laughs> Lamine kenn du laal waa Thiès léegi ndax ñoo la may soxla maa wax buñ dóoree mbëri Thiès lay wax non <laughs> <laughs> waa eh, waxal yow.